ci juróomeelu bayit wi sëñ bi ne maa sayyara al abraaru lin naimi wa wa suyira al fujjaaru fi jahim yàlla na yàlla dulli ci yokk ñooñu xéewal li feek yàlla mi ngi jël ñi defoon lu baax soobu yoonu yàlla ku ci jaar li feek yàlla kuy soobu yoonu baax woowu yonent bi tracé woon mu xëcc la ba indi la nga dugg ajjana ak xéewal xéewal sax la wax xéewal xéewalu àdduna ci la bokk xéewalu àllaaxira ci la bokk ak li feek ku sóobu woon yoonu mbon muy fujjaar yi ñu lay xëcc di la indi ci jaxim muy sawara enfer goo xamee ne enfer bu àdduna ak enfer bu àllaaxira kon bayit wi rek wane na topp yàlla li muy jariñ ak ñàkk topp yàlla li muy jariñ day julli ci sallam ne yàlla na yàlla julli ci sallam julli gu sax goo xamee ne li feeg ku baax di am lu baax ba faw ak képp li feeg ku bon di am lu bon ba faw waaye loolu wane ci ne ne mbaax am na résultat mbaax ku koy def al jazaa'u lil ihsaani illa al ihsaan ke mënoo di def lu baax yàlla yàlla fay la fii lu bon fay la ëllëg lu bon mu daal loolu c'est jamais yàlla kawe na wadis loolu inna allaha laa yudiu ajra al muhsinin yàlla ëpp na muy sànq yoolu nit ñu baax ni ñuy def lu baax mu leen di fayee lu bon yàlla ëpp na muy def loolu kon ku nekk ci lu baax war naa xam ne yàgg-yàgg mbaax da am na ab fay dana ñoo fay yàlla dana fay bul yàkkamti nag bul yàkkamti mën naa naqari tey waaye na leer ne incha allah dana baax ëllëg kon lu baax dafa am prix dafa metti day laaj muñ day laaj coono saxaaba yi fi jaaroon sonn yi jaar liñ daj lépp awliya yi fi jaar yëpp yonent bi alei satu salaam moo ëpp ñëppi coono yonent yi fi jaar yëpp lu ne dañ nañ ko kon ñu xam ne choc de civilisation bi am mbaax ak mbon gi àndandoo di xeex du caagi ne toujours mbaax day gañe ci saas ndax mbaax léegi-léegi mbon sax mel na da koo xaw a gañe ci kaw gi waaye loolu munta sax éternellement boo gisee jamono ji nga nekk mel ne mbon dafa dominer da ngay muñ te xam ne te def li la wax te bul découragé mukk te xam ne adduna du benn bis adduna du benn époque adduna du benn siècle adduna du benn junni at adduna du benn du benn du benn du benn junni at adduna ay siècle yi siècle yu xamu fu mu yem li yàlla wax nag du caagi ne tey tey rek lay am waaye mën naa am tey mën naa am ëllëg mën naa doon am beneen ëllëg waaye nag yàgg yàgg nag li yàlla wax rek mooy am kon bataille ba diggante baax ak mbon nañ xam ne wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin dëgg yàgg yàgg mooy gañe waaye du caagi ne nag waxtu wi nga nekk wi ngay dund mm, ci la dëgg war a gañe déedéet mën naa ñëw mën naa ñëw sa avant mën naa ñëw sa après waaye defal li la war ci dëgg gi defal sa warteef ci dëgg gi bu gañee tey baax na boo ñu tey baax na yow sa responsabilité def nga ko def nga sa warteef ci kaw suuf def nga sa responsabilité des def nga sa warteef ci euh, tabax mbaax ci kaw suuf lii def nag yàlla la dema sa yow kon bayit yooyu sëñ bi leeral la ci loolu bu baax a baax mu ne kon yal na yàlla julli ci yéen saa salaam julli ci saxaabaam julli ci eh, ay taabiinam ak ñi ñi su ñi sóobu yoonu baax wi li feek ku sax ci lu baax yàlla di la fay lu baax li feek ku sax ci lu bon yàlla di la fay lu bon te loolu ab benn la ci loi divine divine yi nga xamee ne dara mënu ko changer ba faw walan tajida li sunnatillahi tabdila sëriñ ne ليالنا يلا دفلولو وفاز لفاك من تحي من دب عن الإسلام بنيل رضوان من السلام لفاك كوي دفاندر الإسلام لفاك يلا يلا يلا جلوتي لفاك يلا مي دفل كيب كوي دفاندر الإسلام مولاي دفل nga am yërmale ak ngërëmul yàlla mi salaam kon lool it ci loi divin yi nga xamee ne dara mënu ko changer mooy képp kuy défendre l'islam képp kuy défendre mbaax képp kuy défendre jub gi fi yonent yi indi woon ngir sauver mbindeef yi teg leen ci mbaax kooku yàlla moo la garanti ni dana am ci yow ngërëm da am ngërëmul yàlla da am dund bu baax ci kaw suuf da nga am paix muy jàmm kon euh, mu am tay ak mu am ëllëg bu la jaaxal yow ne defal li la wax rek yàlla moom la ko war na ko def